combat bu neex doon dox ci diggante ñaari xale doxoon ci diggante serpent ak nga xamante ne mooy Pokola yàlla jox na Pokola ndam serpent ñu ngi koy encouragé di ko masaw di ko wax ni làmb nii la da nga daan bëre daan tey bëre nga ñu daan la waaye mbokk yi ñu ngi ci Pikine toog ak nga xamante ni moo daan mi Pokola fas yéene waxtaan ak moom bu defee ñu bàyyi ko mu nuyu dugg moom ci waxtaan Pokola nuyu na maa leen fay bu baax a baax maa ngi sant yàlla di julli si yeneen bu tedd bi di sant gërëm sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou yàlla yàlla yokk leeram njabootu sëñ Fallou yëpp sëñ Atex sëñ Afia waaw maa ngi gërëm ñëpp waa Daaru Salaam sama dëkk papa maa leen gërëm bu baax a baax a baax maa ngi gërëm waa Pàkk Lambaay sama mbokk bool bool yëpp maa leen gërëm dinañ ñëw ci gërëm bi waaw waaw Pokola ñu gis nga jël xale bi nga xamante ne mooy serpent wàccaay combat bi nan nga ko doon waajal seen digganteeg serpent entraînement rek luñ ma tere ma bàyyi luñ ma digal ma def loolu kase la mhm. waaw mais ñu gis tey Pokola ni mu dugg see ci stade bi waaw daal de foot boo yaakaar naa ni Pokola bu muy dugg si dafa tàng Pokola loolu lan moo ko def ci moom làmb rek lu ñuy lu ñuy liggéeyloo dañoo ñuy liggéeyloo fala force buñ duggee si stade bi dañuy say dañuy làmb rek ambiance mu neex ndax amateur dañuy dëgg dañuy dagg seen billet yéen ngeen yàq seen yitte kon foog foog tamit ñu leen di jàppale di leen may ay images rafet. waaw. loolu kese la rek. mais daanaka Pokola moo yoroon ambiance bi nga xamante ni mooy stade bi. waaw dafa dugg si waale woon ndam wala daa amoon nu ñu ko dee woon ci digganteem ak adversaire am ba tax mu mu ñëwee noonu. Bar Seydina Mohamed billaay walaay laay ñi may àndal xam nañ bu baax lamb ji dama feebar dama entraîné ba tooy. billaay lamb ji ba mu desee semaine damaa sant perfusion. te du feebar. te du loolu yëpp loolu du Thiès. ko jeex na di ko jàmm bu amaatee combat bu dul waa Pikine serpent yàlla may ko ndam waaw. mais ñu dugg ak yow ci combat bi. ñu gis arbitre sifflé seen diggante. Pokola ku ma a xam xam nga ci xeex. waaw gis tey serpent moo moo dominé ci xeex bi daanaka Pokola ñëw bëree moom. maanaam loolu loolu dara ñun lépp lañ mën ñun ay sëtu fàllaay lañ. mun nañ bëree mën nañ xeex mën nañ def lépp. bu mbër ndawee dañu song xam nañ ñu ñuy bloqué sama yaay jàngal na ma ko si Balde. xam nañ fu ñu war a songee xam nañ ñu war a xeexee mais tey du bisu xeex tey bis bi loolu la bëggoon waaw mais ñu gis nga nëbb sa xeex waaw bàyyi ko xeex bi mu mu xeex nga bëreeg moom ci suuf moom ndax moom dafa moom boo waxee dafa làmb taxawee yëpp moo waxee mu ne ma Pokola la ana kii mun na ma seere beneen lit bi wasaare mhm. mun na ma seere wasaare uh-huh. mun na ma seere moo njëkk a def suñ signature ma ne ko man damaa ne xale bu ndaw teel a waat lit simple amaana ni sax lu ma tegle ay kaawu sax moo tax ma bàyyi li simple lu ma xam ne booy dem di naru gars yi booy dañ lay daw te yàlla xam ne ay ponkal yoo xam ne damaa jàppante ñoom li sempul bëreeg ñoom bëri yu mel ni ku si mel ni Franc Serigne Ndiaye bëreeg ñoom bëreeg ñoom bëri yu metti nekk xale bu ndaw te boobu tollu ma woon nii maa ngi sant waa Fayaako da ñëwal yaakaar naa bëri boobu tey nga wane sa diggante ak Serpa waaw bëri boobu laa wane waaw mais Pokola ñu gis combat bi euh, mu demale la ci xeex nga daan ko ci bëre mais Pokola instant gars yi ñu doon sa diggante Talfa yàlla def nga bëre ki nga xamante ne moom. Talfa dafa am combat moog paa bi. di ñaanal paa bi ndam. ku nekk ci combat mënu ñu ñu waree bëree rek man ak moom nañ bëree. mais yàlla def na nga daan daam sugeer numéro 2. waaw daan ki nga xamante ni mooy serpent. waaw Pokola fan la jëm ak ñun. ku ma làmb boole sama grand yi. suñ grand yi nañ ma may sens. làmb mënoo bëre ak say morom yëpp. munoo daan say morom yëpp nañ ma may chance. yaakaar naa seet woon naa la fi nga am loo ma waxoon. waaw am combat bu taxaw nga ne ma ñaar ñooñu na na diw daan diw ñu jox ma ko ma daanal waaw loolu kese la. kan la woon. Zarko dañuy bëre. Zarko waaw. pareegoo Grand Yoff. Grand Yoff pareegu ma ñoom ñëpp dañuy bëre xanaa déggoo ma ne dama koy gém gémaale dama waxoon dama leen waxoon dama koy gém gémaale ñu nekk si ginnaawam. kenn du rëcc ñoom ñëpp dañuy bëre. yow daal fi mu ne nii sa sa sa sa sa sa na nga koo samp Grand Yoff. génn ko diggante Grand Yoff parcelle ko samp. Grand Yoff bobin baa ngi nii. mais tax Pokola singilee waa Grand Yoff ak waa parcelle. lamb la rek. ku ma lamb booleel ma bëre de. lamb la rek. ñu gis kale bi nga ko waaw ba loolu maanaam ñun loolu du dara bëre rek. bëre rek maa ngi sant borom daaru sama sëriñ maa ngi koy sant bu baax a baax borom daaru maa ngi koy sant bu baax maa ngi sant Babacar. maa ngi sant Cheikh Sarr borom fayako maa ngi koy sant. mais tojol gis nga jàpp ko bayra ko daw. waaw téye ko teeku rek. jàng bëre rek. jàng bëre rek maa ngi gërëm waa Darou Moussi. waa Darou maa lay gërëm bu baax damay gërëm. loolu lu ci yës ay kelee kelee ngi fi. mais ñu gis nga daan cortisil balde jooy. sama nijaay la. ndax day sonn si ñun. dañuy yee. di sonn si ñun. di ñu teg coono. di yàq ay yitteem duñu entraînement loo kon Fala foos bu ñu daanee dañ ko war a xam ne lu ñu liggéeyloo def na effet maa ngi gërëm waa Ñoojoor waa Juloor mais yaakaar naa kër gi ñetti avance fi duggoon benn bi moom jàll na mu des yeneen ñaar lépp xanaa doo ma dégg ndobin bi ubbi na yaa ibbi ndobin bi bu ubbee sëñ Fall na leeral lépp Fallu ba Fallu Falaawa Bousso dina leeral lépp dina la Soxna Baldé ndam paa bi Souleymane mbay am na combat yàlla ko yàlla mbay Boy Zil tey sama waa Ikiri aw ma seen fay dama leen sant gërëm leen ay ñoom Badara Babacar Balde sama doomu nijaay. bi ngay dem bi ngay dem nga ni Ama lu mu la wax. Ama ba may dem fii la ma ñaanal ne ma dénk naa la sëñ Fallou moo ma ko wax di sant borom daaru di sant Babacar maa ngi sant waa Baasun Yaxya Diop yi ngi nii maa ngi koy sant bu baax jàpp na si kombaa bi maa ngi sant ñëpp. di sant ñëpp di sant sama mbokk séeréer yëpp ba tey say adversaire Zarko rek nga fi waxagum bu daanee Ada xaa dooma dégg sama morom yi doy na ku ma si booleel nag ma jox samay morom avant ngay jógee sa booy doon wax est loolu ñeme nga cee di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm si ta di ko ñaanal jàmm di nuyu tarki ndaa yëpp waaw ndax comme la comme lu Seck wax rek bu ñu waree bëre dañuy bëri ñun ñëpp xamante nañ làmb la rek sama kër maam mu ngi jàmm ga waaw di gërëm si ko ñaanal ndam ni yàlla na jig waaw di gërëm ñëpp maa ngi war sant di ma war a sant maa sant sama mbokk séeréel yëpp maa ngi sant sama mbokk séeréel yëpp maa ngi sant waa Fayaako waa Ñoojoor